Nous avons eu ci sa euh, candidature à la présidentielle dañu xëy fan yi nous euh, gis la euh, ñu gis affiche voilà mi ngi Click candidat aux élections présidentielles de 2024 mm. Mamgo Diazaka président MD Click hashtag 2024 Diazaka président Aïssatou réunis prétendre encore une fois di pour jiite ko ñëpp le dire. lay wax mm. c'est des repris de justice. mais ñoom Amadou Ba ak ñoom nag ñoom ñoom. Amadou Ba dama ni côté bee nag. waa boor bee affaire ban problème la ñu am. Hmm. foofu ay tapet yuy géree géreelu ñoo fa daje. Euh, xam nga euh, loolu la Sénégalais yi umpee Sénégalais yi li ñu umpee. ci yow mooy euh, l'autre côté qui n'est pas artiste. xam yow boo xoolee journaliste nga comme journaliste yëpp man bu ma nee candidat mais da ngay gis nit ñi naan mais mais kii lu tax mu naan candidat la tey jii à part Macky Sall man maa mën yor réew mi xam nga lu tax parce que réew mi ki ko yor Sénégal fii ku ko war a yor il faut nga nekk ko sadik nit da toog ngay xalaat nit bu lay waxee dara da xool ndax moom li mu lay wax mu ngi koy def bu ne la demal affronter policier bi Macky Sall faw ñu xeex ak moom te moom du xeex xam nga nit da muus moom xeexul nag xam nga mm-hmm. donc nit ki li muy wax xeex xeex xeex xeex te moom du xeex mm, moom du am góom du xoosu ñu war ñu am suñu pétrole am suñu gaz am suñu zircon ay politiciens verts taxaw di wax boy jaay nañ pétrole bi jaay nañ li jaay nañ li te liñ am yeuf liñ lañ bu amee. ñaata yoon la taxaw fi naan Macky Sall lek nañ xaay bi xale bi la jeunesse. te mom te mom moom xaar xaar xaar xaar xaar xaar